mooy maanaa aaya bi ak haza boobu lan lay ishaara maanaam fan lay fan lay dellu ci aaya ci aaya bi bi ko mujj wala ci saar yëpp ak lan mooy suxuful uula d' accord léegi xam nga yàlla bi wax dafa ne inna haada niki lii daal wax ji la fi suxufil uula téere yu njëkk yi moo fa nekk waaw léegi inna haada waaw nga haada boobu ismu ishaara la waaw maanaam ismu ishaara la lan lay ishaara اي لكن اسم اشاره هذا آه، للقريب دا فاي اشاره لو جيغي طيب، من لون هذا واو بوكو من لا ذاك واو دغ لا هذا مو ميغي في لي ген في واو اني داكار لو داكور لغي بوروم خام خامي حاجه لو سي نيت واو ني ان هذا لي نسي جوبل موي القران ييب ني ن ديري بوروم سوري اها parce que amna lu am ci alcorane lo xamne amul Mm-hmm. Mm-hmm. parce que tey bu dee inna haada bi da ngaa jàpp ne alquran yépp la. Mm. kon jàpp nga ni kon am na beneen yonentu bu am alquran bu dul yonentu saa salaam. waaw al te yonentu bi saa salaam si des it moo di ne téere yi passé woon par exemple tey boo xoolee tawreet. Mm-hmm. rek sóoratu anaam lay tolloo. mu sóoratu anaam ñooy tolloo. sóoratu. anaam waaw saaru anaam kese. waaw moo tawreet ñooy tolloo. Uh-huh. waaw. est ce que. bi si des yonentu bi saa salaam nee na. Euh, tire yonent yàlla Ibrahima. ay amsaal la won ay misaal. bu yonent yàlla Moussa ay ibra ay ibra la won ay warate ay ay ay ay baye xel dal waaw lay bàyyi loo xel. xam nga kon. bu de amsaal bi de ibra. mom alxuraan amna am amna ibra amna na yeneen ak yeneen ak yeneen ak yu am so kon du ne alxuraan yëpp. am na Bachir am na Nazir. ok léegi ñaari wax yi nak ñom ñoo ñoo ci gëna wér. mooy bi ne inna haada mooy mhm. saar bi mhm. téere bu yàlla ma sa wàcc rek am nga saar bi ah, saar bi suratul aala suratul aala est yàlla wàcce na ci kaw suuf cent quatre téere waaw téere moo uh-huh. léegi cent quatre téere yooyu téere boo ci dem rek mhm. ah fa gis suratul aala est ñaar ñetteel wax bi ñu ne déedéet inna haada mooy ليكو كوم آي نيار آي قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى بل توسر حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا ليني أنا مديكو داس قد أفلح بس خير وأبقى آي نيت آي ولا نيت يني دون موي أمول بن يونت بيا لما سيوني جهل تير ولا جهل آي فوي تأمل أمول آي تبوب من تلاي عند بقوله xada aflaha man tazakka wa dakara fa salla mhm. mbooleem luy diine mm. rek moo ko tënk diine yu man a doon ci ba suñu maam aadama ba ko yàlla yónnee ba fa ñu fa ñu jëm tey mhm. bépp yónnantu bu yàlla ma a yónni génnoo ñett yi mhm. xadda la xamante zakka mhm. nga pas-pasu xol wa zakara suma rabbi nga tudd ko sa làmmiñ nga xam li nekk sa xol fa sallaa nga jëfe ko dëgg la de waaw ah? ba noppi bépp société wala bépp yónnantu bu yàlla mës a yónni ci ñett yi am na ñoo xamante ni tusturoon al xayaatu dunya ñoo xamante ni dañ ne fa ñukk seen yónnant ak lam yónn wuti àdduna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 mu mu tànn ci ñaari téere yooyu soo fi Ibrahima wa Moussa lan moo tax. d'accord léegi mën nga amee laaj la. waaw euh, de man yow da nga laaj. de de man benn laaj la benn ah, bismillah. léegi yow lan moo tax ah nga laaj ma lii. Euh, li tax ma laaj la lii dama kaa xamul ñi seetaan bëgg koo xam ma laajal leen ko laajaalal sama bopp ngir nga xamal ma ndax xam naa ne bu ma la ko laajee dama ko xamal tontu naa de. la ca yàlla dana waar de. lii kenn xamu ko. Ah, lu xale yi naan comme guerre. moo tax de saf na saf na mondial de. moo xam li ma laa jox. baax na baax na baax na jërëjëf baax na baax na jërëjëf baax naa la jërëjëf. Eh, eh, waaw kon bisimilah. léegi mën naa cee dolli poobar ak kaani bi. baax na Babacar baax na. waaw ah, kon bisimilah ñëwal. baax na waaw ah, bisimilah ñëwal baax na. loolu koy jarul mer nag dégg naa ko gaawoon a xeex nga nag waaye loo yox ba dugg ci sama sama yeel yii doo ci gaaw a génn <laughs> dégg naa temps booy moom ñaar baan ñett rek moom. <laughs> dégg xam dañ la doon gañ a xam yaa doon gañ nag waaye dégg naa sa tàmbooy gaawoon ngaa xeex lool waaye de attention de. waaw kon ñaareelu ma ko nag mënoo ma laaj bari di ñaawal. waaw ah, kon tamit dama koy bàyyi de. Ah, waaw ñoo ñëwal léegi bul ah, mm, jàpp la. waaw neexal ma doog ko ton Njaay jaata Njaay borom bu ne inna haada la fi suxufi l uula. Mhm. mboolem yonent bu yàlla ma a yónni. Mm. Mhm. ak téere bu mu la mas a jox. Mm. du génn yii. Mhm. li nga fas ci sa xol mhm. te zakka mhm. wa zakara sma bi nga tudd ko sa làmmiñ mhm. fa salla say jëf wane ko bépp yonent bu yàlla si yónit génnoo bal tuusuna xayata dunia wal axira am na ñoo xam dañ dafa ñukk seen yonent ak la yàlla yónni ci moom yitte woo àdduna dëgg la léegi loolu moo nekk soxafil ula yi paase woon yëpp waaw léegi euh, téere yi paase woon yëpp cent quatre téere la légui 104 quatre mu cité ci ñaar rek ñaar ñaari prophète rek muy Ibrahima alayhi salam ak Moussa hmm te pourtant tawré tan fi hmm hmm euh injil damaa jum injil bu yonent yàlla Isa ngi fi Zabour bu yonent yàlla Daawuda ngi fi hmm ak yene joxoon suñu ya mam adam ak suhfi shish yonent yàlla shish et cetera et cetera li tax mu cité fi moy ñi yàlla mas a yónni ñëpp si ay yónant hmm. ñaari ñaari population yi mu amoon hmm. ñaari xet nit ñi mu amoon waaw ban ak ban ki jàngul dara hmm. bindul liirul waaw ah? ak ñi nga xamante ni ñoom dañuy jàng di bind di liir bu yàlla bindee àdduna ba léegi ñaari moo am ñaari ñaari fi am dëgg la de ñi jàng ak ñi jàngul ñaari société yi moo fi am société bii ñoom xam nañ jàng xam nañ bind xam nañ liir mais société bii xamuñu jàng xamuñu bind xamuñu liir ñaar yi rek la. Mhm. boo xoolee suñu maam aadama mhm. ah mhm. ay téeram ñu ngi koy yónni ci ñoo xam ne illettrés lañ binduñu liiruñu. suñu maam Adama. Ah, suñu astafurlah suñu maam Ibrahima. Ibrahima waaw moo tax mu tuddee Ibrahima. Ibrahima. bind mënuñoo liir. ay moo tax tey. xam nga nee na suxufi Ibrahima. waaw téere Ibrahima. waaw mas ngaa gis livre Ibrahima boobu. ah. déedéet koo gis de. amul fenn fuñ ko bind. amul jeexital. lu tax parce que dañ koo yónni ci xeet boobu mu ko mu wàcce woon ko foofu muy waa Màkk foofu noonu. Mm-hmm. ñoom ay électeurs la xamuñu bind xamuñu liir. Mm-hmm. ah waaw dëgg la. léegi yàlla Moussa. Mm-hmm. moom yàlla yónni ko si ñoo xamante ni xam nañu bind xam nañu liir. moo mu cité ñaar yooyu. dëgg la tey <coughs> euh, tawreet mu xam nga Moussa tey livre bi. mi ngi fi. waaw ancien testament ak nouveau mhm, testament mi ngi fi. Mhm. donte sax am na ay changement am na yu ñu dugal ak yu ñu mhm. génneeg yooyu. waaye di nga xam ne rek donte benn baat la am na lu fa des. kon ñu ngi ko consommé ba léegi. mais euh, suxu fi Ibrahima téere suñu maam Ibrahima amatul disparaître na. kenn yoratu ko parce que société boobu du ñu woon bind du ñu woon lire du ñu woon nangam. Euh, mi ngi mel ndax tubaab yi bi ñuy ñëw bi ñuy ñëw Sénégal dañu ñu coloniser. booba ñun sénégalais ñi fi nekkoon. xamuñu woon bind histoire. waaw ñom histoire oral lañ ko xamone ci suñu pa yi geewul yu magi ñu mhm. daan japp oral xamni oh. diw mo jur diw mhm. diw mo nekkon buru nangam diw mhm. diw ko ray diw mo waxon le dañ ko daan mokal diko toxalante ci seen dom yi muy dem wallahi eh, jambar ñu koy ñu koy donante ki eh, ki deme ba gis ci ay dom mu netti ko ay dom dom yi diko netti li histoire oral bobu lañ amone wallahi mais bu dee tubaab bi nag ñoom dañ daan bind def sàngam buur sàngam nii la dafa nii la doxale ni la nàngam léegi nag loolu mooy suxufi ibrahima mooy ñooñu ay illettrés la woon jànguñu woon suxufi Moussa nag ñun dañoo jàngoon boo tax mu suscité fa ñaari yooyu macha allah waaw sadaqallahu léegi nag bépp bépp yónent bu yàlla mos a yónni ci ci société boo xam jànguñu mënuñoo jàng mënuñoo liir dana leen wax xad aflaha man tazakka wa dakara asma rabbi fa salla bal tuutuna xayatu dunia wal axira xayr wa abqa bépp société boo xam dañuy jàng di liir yàlla yónni fa téere bu ñuy jàng di liir danañ gis seen biir téere ba xadda aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbi fa salla bal tuutuna xayatu dunya wal axirata xeyrun wa abqa tabaarakallah inna hada la fi suufi la suufi ibrahima wa musa sadaqallah foofu la saaroo yam de